njàng mu jaar ci yoon akuk dal ren loole kilifa yi njiital gouvernement bi di la mu bëgg premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye jox dëgg jàngalekat yi toppee nguur gi ay ndàmpaay ak i salaire euh, laaj na jëwriñ ji ñu bootu yore njàng mi ñu fay ko na mu gën a gaawee koppar yooyu nguur gi warloog jàngalekat yenn yu Sénégal. ab plainte ci ndoddal ministre environnement jubóo liy tikkaak liggéeykat yi di Eaux et Forêts Kër Massar ne arto def lu ni Euh, di promoteur yi ñeel wàllu carrière yi Tiwaawoon Pël ba nu ko tëjee léegi ñoom joxu ñun ca kenn ku may kon kilifa gee ki agent wàllu xibaar bokk na ci gëstu tey bi nu jagleel diw geeg yokkute geneen gi ñëw dolleeku ci litre bi ñaar fukki dërëm jigéen ñi ca wàññeey wéyal njàmbat li tàggat yaram sunu gaynde basket yu jigéen yi Bamako la tax ñuy ñàkk euh, coupe du mbiri koppar ak i prime ak weddi tukkee ci seen entraîneur Moustapha Gaye mi kon weddi ba mu set kàddu yi ba ba ñoom ñi yëngu ci wàllu basket gi di jigéen ñi ba nu yegg see démb aéroport lu ni mel la nu wax duy koppar ak i ñaxtoo leen ñàkkaloo seen digg ak Angola waaye jëwriñ ji ñuy dénk tàggat yaram Faustin Diatta moom xam le ni dëgg la ni ñoom li yoon yeeg seen entraîneur dañ doon sàkkuy prime de finale ca du woon lu nu sóoraale ci budget bi ñeel loole di jongante afro basket Mali. tàggat yaram yeneen ci leeral ak Cheikh Tidiane Diagne gëstu bi tey ci dund askan wi ak tolluwaay li kuran bi la ko alaaji njóogu jën jagleel le marché di wàllu koom-koom geeg soxna Man Touré ñang yéene kaay du Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdoulaye Diop. Assane nguur gi ki tooñ diggam ak jàngalekat yi lu jëm ci wàllu ndàmpaay ak salaire yi muy laaj jëmee ci ñoom kàddu yi premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye sàkku na ci jëwriñ ji ñu dëkk njàng mi ñu daal ko fay yooyee koppar nu mu gën gaawee ngir ñu am njàng mu ànd ak dal ren mu ngi ko xamle ci ndaje ñu loon waa jagleeloon waajal ubbite lekool bi ndate jóoba nga at mu dal ci wàllu njàng mi di maanaam at mu amul yëngu ak yëngal ci biir njàng mi mooy li nga xam ni moom la gouvernement bi bëgg njàngalekat yi bëgg ko parents d'élèves bëgg ko partenaires yi jàppale njàng mi tamit bëgg ko waaye loolu soo moytuwul du am ci at mi Gougne Niang moom mooy coordonnateur CUS. il faut que bi am ay perturbations. bien que loolu gën a saafara bi mooy leneen lu dul fay rek amul beneen saafara bu dul fay même su fekkee ne secrétaire généraux syndicats yi bëgg nañu apaiser année bi duñ ko mën parce que ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a am salaire war a fay loyer war a fay lekk war a fay naan ñooñu duñu duñu xaar. moo tax ñu xalaat ne que ne peut gouvernement bi dina xalaataat bu baax jël ay dispositions pour que vraiment retard de salaire ñu réglé ko su grève di jëruñ ju njëkk ji mel ni dafay dëggal wax ji nga xam ni moom la syndicaliste yi wax mu ni poñ yooyu gouvernement bi daf ci war a indi saafara ci anam ya mu gën a ne wax nga dëgg ci poñ boobu gouvernement bi moom moo deful la ko war kon nag euh, yow monsieur le ministre defal lépp li la war ba fay ñi nga xam ne ñoom ñoo di jàngalekat yi seen i koppar mënuñu am dëgg ci seen kaw gouvernement bi mënul toujours di tànqamlu li nga xam ni moom mooy seen i revendication waaye lépp li nga xam ne rek moom moo ci war ci ay procédure daañu ko def ngir indi ci saafara moom Souleymane Ndéné njaay boole ci di woo ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu njàng meeg njàngale mi ngir ñu def seen kamtalaayu kartan ngir njàng mi mën a ñoŋ ñu bañ a nasaxal lii di awa niiru gone yi Ndate Diop ñu koy gërëm ci njàng ginnaaw ëllëg alxamis la ubbite gi ñeel yi Sénégal waaye jur yi di ca waajal gi ci wàllu téere yeeg njëndeen mi ñu ca bari nag daal di dëddu librairie yi ndax wàllu njëkk ma parteer yi daal ci la ñuy gën a jublu fu mel ni Mbacke Abdoulaye Fam li des ci ubbi tey l'école bi day bëree waaye day ci librairie yi ak yeneen papeterie yi nit ñi songaguñ leen doxantu bi ñu def ci biir dëkk bi ñenn ci ñoom firndeel na ko. ah léegi ñun ñi am yaakaar ci ouverture bi daal nekk yëf yi dana changé depuis que fermeture école bi am dara doxul mais léegi ñu ngi yaakaar ne bu ouverture amee dana changé. ñan xeetu livre nga jaay ak seen njëg. yëpp yëpp des primaires jusqu'à la terminale waaw. njëg bi. ah njëg bi njëg mu ngi tàmbalee ci 1000 francs wala mu yées mille francs di dem ba ci dix mille am na. yooyu livre ADP la day seer. par contre ci mbedd mi moom ñi nga xam ne ñoom ñooy katu livre occasion yi ñu gën leen a xam ci parterre jamono ji ñu toll nii seen bamba maase na. chaque année ouverture des classes dañu jaay fourniture yi parents am na ñoo xam dañuy am doole xam dañuy néew doole mais ku nekk ak na ngay dikke quoi ñi dañuy ñëw bëgg lu bees ñi ñëw bëgg lu màgget ku nekk nag loo dikk ñun am nañ loolu livre ba ci a seer ay koy jaayee livre xale yooyu léeg ñu jaay la ko ay 1000 francs 900 ku nekk nag yaa xam li nga bëgg dangay am lu bees am occasion la naïf moom ci wàllu boppam ne ñu ngi dee jamono ñuy toll ni ne na kat concurrence bi jaaru jaarut yoon te lu ñu war a seetaat la concurrence bi c'est déloyal quand même léegi loolu du loo xam ne mën naa continuer dafa am yoo xam ne du yoon war nañ cee jóg parce que boo fekkee ne yow léegi yow da nekk place boo xam ne yow yaa ngi pay say droit di pay lépp. keneen ñëw jàkkaarloo ko yow ne mënuloo ma dara mbedd mi moomuloo ko mbedd bi moom buur la c'est que mbedd buur la mais quand même y a quelque chose qui n'est pas normal. Abdoulaye jërëjëf Abdoulaye RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróomi minute. RFM rajo bi leen di xibaar saa su ne. ministre environnement Djiboly Tika promoteur yu carrière yi Tivaouane Peulh joxoñ ko ci seen aw tolluwaay ak nekki nag tëjub yooyee carrière ab dirangile ak i agent eaux et forêt yu Kër Massar ña koy sax arto yóbbu yooyee kilifa ci yoon cib euh, ndaje taskatu xibaar yi lan ko xam xamle démb Salif Sow ma nga fa woon. acteurs yi nga xamante ni ñoo doon yëngoo ci a ngi gaañam ñoom nee nañ fas ñoo deltu ginnaaw ñi nga xamante sax ñoo jiite mbir mi di waa eaux et waa ministère fas yéene nañ leen porter plainte ñu dem tribunal lu ma jël état lay porter plainte wala nga xam ñoo bëgg du fermer sama les eaux et seen patron seen ministre mooy Djibo ndaxte ñoom dañoo gis ne dogal bi ministre bi jël da ko wax rek bindu ko jox leen dara te mbir mi sax daa mel ne daa am politique ci suuf da ci dolli am na nag ay politiciens yoo xam ne PDS lañ nekk dañ naan kii ngeen di dimbali boo amee xaalis ci Macky da ko yóbbu Macky benn yoon laa mosa mosul nuyoonte ak moom problème politique bi lee métti na bu baax a baax suñu ñu doon jaay a jaruñu si nañu lu ëpp fanweeri million ci suñuy koppar si seen carrière nee nañu ñoom dañoo dëppoog yoon te sax nee nañu kii di Abdoulaye Wade na wax ci mbir mi balaa bëy di wéyu mbuus na wax li muy dañoo mer mënuñoo fab suufam Dakar si yëpp accaparé ko jël ko séddoo ko man de du ma nangu loolu man Salif Sow Parcelles Assainies rajo Futur Média jërëjëf Salif démb nag aw tiis di ci rëbës camion bu saaraan foofe faat fa ñetti nit bokk na ci alkaati am na ci ñu bari ami yu metti Seydou Nourou Ba ci wàllu ay brancard ngir daal daal di jëlee ñaar ñi nga xam ñoom ñoo daal di faatu ci saa si bu doon télévision yi dañ leen di wax moytu leen ndax image yi mën na leen a choqué te choqué nañu ñi nga xam ne ñoom ñoo fekkee mbir mi. benn chauffeuru camion berlier bu DK 54 27 AE moom moo daal di dal euh, ci ñi fa doon dox gannaaw ba mu dalee ci ab moto ak tam benn car rapide foofu ci avenue du Sénégal ca quartier bu Rebeuss adjudant chef bu camp des sapeurs pompiers Malick seenu Ousseynou Kandé ak équipe ñëw fa ngir jëla fa ñi nga xam ne ñoom ñu daal di faatu. blessé yoo xam ne euh, sonn nañ lool ak corps sans vie. ndax ñoo ngeen identifié ñi nga xam ne ñoom ñu ñàkk seen bakkan. identifié nañ leen parce que jigéen ak ñaari góor. ñu am lu toll ñaata at. Euh, ak. Euh, ci xabaar yu mujj ñu am policier bi nga xam ne moo toogoon ci moto bi ci camion bi fekkoon ko fa dal ci kawam mujj na fàttu kon mu nekk ñett ñi nga xam ne ñoom ñu ñàkk seen bakkan ci boobu l'accident bokk ci ñoom benn xale bu jigéen boo am lu toll ci ñaar fukki at di wuyoo turu Xadijatu Diop mu ngi dëkk HLM 4 villa numéro 13 11 lu toll ci juróom-ñaari junni ak téeméer ak fanweer la ñu fekk ci biir saakam ak tam benn portable bi mu yoroon portable boobule sax moom moo dal di waral ba ñu mën a xam moom mooy kan ci woote bu mujj bu mu ci amaloon Euh, Seydou Nourou baa ñu koy gërëm RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñeenti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wàllu politique Macky lu jëm ci wàllu présidentielle 2012 dàq bépp xalaat daal di rek ngàlloo euh, euh, lii di mandarga yu PDS donte nag noppi na ngir dalal képp ku bëgg ca ñoom PDS fekk si ko ci lii di mandarga yi APR Macky Sall doon ci janoo démb ak taskatu xibaar yi Aliou Mouba mu nga foon. Macky Sall indi ay leeral ci euh, tuuma yi ñu siiwaloon fan yi ne njiitu APR mën na nekk mbër PDS. Macky Sall dellu PDS loolu xel sax ñoom sax mënuñ ko xalaat bu ñu tëdd guddi ba gënt kon nag bu ñu toogee askan wi yëpp tey ci àdduna bi jàpp ne man dama ne damay dellu PDS jar na ma taxawaat ci kanamu askan wi leeral ne loolu du samay kàddu wala bu fekkee noonu la ko nit ñi déggee woon nañu xam ne mosuma wax loolu wala loolu sama jëmukaay ma waxoon. ci loolu Macky Sall ne lu mën a am daal. lii la. bu ñu amatul candidat xamatuñ fu ñu jëm de. bu ñu ñëwee si ñun nangu condition yi ñu teg ak politique bu bees bi ñu teg muy politique bu jëm ci lu jëmale askan wi kanam danañ leen nangul loolu ñu ñëw fekk si ñu. ci wàllu relation yi mu am ak Abdoulaye Wade Macky Sall ne amul dara lu ñaaw ci seen diggante nee na APR parti bi mi ngi bennoo ak m jërëjëf Alimou RFM euh, juróom-ñetti waxtu tegal fukki minutes. ak nag yéen. ñu door gëstu bi ñu jagleel tey diw géeg yokkute geneen gi ci jaaxal lool jigéen ñi ci marché ak waañ wi euh, litre ba ñaar fukki dërëm ñëw na tegu ca muy kon ñaari téeméer ak ñaar fukk ci ñoom consommateur di way jëfandikoo yi nag ñoom euh, di jàmbatati reportage Mamadou Fall. ca marché ci leen ay jigéen yu yor pañe seeni loxo ñëw ndugg ca biir nag ab grossiste central foofee

xam naa nag ay bidon 20 litres. bidon 20 litres ñaata lay jox. 19500 lay jox. bon jar 18 000 non. waaye ajuma yaat commerçant détaillant moom gis ni rek loolee li ko waral moo di diwlin moo ñàkk ci marché bi. xam nga kii li ci sonn sonn war amul diwlin taay yi mooy gën yi di gën ndànk mais yokk boobu moom yokkuwul moom ci prix bi mais moom bii moom du ñu gisul sax di dëggal yokk yokku diwlin bi. 5000 waaw 5000 5000 la ñaar la doon jar 5000 5000 léegi ñoom yokk nañ ci téeméer quoi téeméer waaw loolu depuis kañ la man démb laa jënd démb démb kon démb nga sentir ni yokku. yokku na waaw waaw. diwlin bi yokku na ni ki aljuma ji ñu génn ni ko grossiste yi waxee bëri ko 200 litres bi moom jugee na ci 192000 dem ci 190000 bidon bu 20 litres bi jugee ci 18250 dem ci 19500 bu 5 litres bi jugee ci 5000 dem ci 5500 litre bi ñu koy jaayee léegi 750 francs. ci njaareem jaaykat yi ñoom gis ne te gi li ko waral mooy produit beeraar inaakuwa ci diwaan ga ñoom daal di joxoñ Sune Or Mohamed Diop. yokku njëgu liitaru diwlin bi li ko waral moom mooy diwlin bi ci boppam moo amul ci marché bi Moustapha ñu dajeeg moom ci marché Ndoumbé Diop bu Diourbel. diw bi fekkee ñëw nga mu jeex faaw boo demee ci biti bëgg a jaay diw di nga dem di ko jënd soo ko jëndee bi soo ko su jëndee vingt litre faaw mille cent ko mën jaay wala mille cent cent quatre moo tax faaw nga teg ci les Sakwa jàppo ne lii yëpp su ne woor moom moo ko waral Mame Gor seen responsable régional bu UNACOIS jàppo di ñu xamal ne su ne woor dong moom moo teg loxoom ci diw gi moom moo tax mbir mi ni mel am usine bu Jurbel ganaaw bu ñu jokkoo ñoom nee nañ mu ñoo yëy yàbbi ci mbir mi ni mel Mohamed Diop Diourbel enfin ah, jërëjëf Mouhamed euh, way jëfandikoo diwaanu Saalum nag ñaawlu yokkute geneen gi ci wàllu diw gi jigéen ñi rawatina ndax dinañ boole ñaar yokkute ci wàllu kon la ñuy jëndee waaye it euh, day yàq seen ak togg ndax euh, tooy ga ca waroon ak yeneen day mujj wesang ñu dem Kaolack fekki Ibrahima Benjamin Diagne. ceeb légume jën ak tuuti diwlin loolu taxul njéeme am ndab bi mu bëgg. yam rek parce que diw bi dafa cher. li daan jënd ci diw mu tooyal la ceeb instant boo ko bëggee jënd day métti trop sa dépassé ay jeex litre bi 1000 francs laa ko doon jëndee mais instant saf loxo la def waaye tey feema mi réer na ko ndax diwlin bi ñu yokk. tey ceeb bu weseng la yàkkale ba tax xale yi kër gi di koy cokkaas. tey moom kaas nañ sama rakk bi mi ngi naan ma tey ceeb bi niinu ni ko daan defee moom nii tey nii waaye nee na du moom moo lajji. jamono moo neexul. tey jii jamono naqari diwlin bi ne danduma toggkat bi dëkkee ci nim gi ci Kaolack di rëccu yokkute diwlin bi ni ab faaleen bu jaaxle. Oh oh Ibrahima Benjamin Diagne RFM. jërëjëf Benjamin ki yore wàllu jokko su ne oox moom nag euh, ci mbir mi euh, diggéen na indi ci leeral ci wàllu yokkute njegu diw googee tey ji lay naka noonu nit euh, réaction war a tukkee ci directeur du commerce RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak ñeent. wàllu sport ak Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay nuyu sëñ Cheikh. maa ngi lay fay El Hadj Assane Gueye. bisimilah. Euh, door ak ak wàllu basketball ak <coughs> suñu gaynde jigéen nga xam te daal démb la ñu bawoo foofu la ca Bamako daal di ñibbi si Sénégal waaye mën nañoo jàpp ni daal euh, seen voyage ki bëri na coow la ko waral moo di gaynde yi nag dañoo lajj seen final ñu bari jàpp ni daal euh, la ko waral moo di koppar yi nga xamante ne moom lañu doon laaj waaye daal suñu gaynde jigéen ñi gannaaw ba ñu ñibbisee démb foofu la ca stade de Léopold ca aéroport ñoom nag daal dinañ weddi lu ni mel nee nañ daal euh, ñoom euh, prime yi daal amul dara li nga xam te daal gàllankoor na leen ko déglu si reportage yu Modou ci tàkkusaan gi la gaynde ñu jigéen ñi euh, teer ca aéroport Léopold Sédar Senghor ñoom ñu nga jol kon volu Sénégal Airlines kanam yu xaw a diis doxin yu yéex gaynde yu jigéen ñi mu mel ni rek kon li leen jàpp moo di daan gi ñu leen daan waaye ñu ngay génn di jéem a nëbb kon seen naxaar googee ak reegu ndaw gu ñu jagleel yenn ñaar fukki supporters yi ñëw teeru leen kapiteenu gaynde yu jigéen ñi moom mer lool ni rek du benn yoon premier tax ñu ñàkk kon seen jàkkaarloo beeg Angola yaa Traoré. loolu amul xaw wax ji fan la jóge ak kan moo ko wax parce que yéen ñi suivre demi-finale bi ñu ko joué à 20 donc temps bi ñuy dem bay sangu julli affaire minuit jotoon na suñu coach mi ngi woon ci couloir yi di ñu wax gaaw leen ngeen dem ngeen noppalu ko bala ngeen dem tëddi pour préparer seen match final donc ku pare wax ay waxu xaalis ba 3 heures 4 heures du matin loolu wax bu yàqu la wax bu. ayaa waaye nangu nii. amoon na ay jafe-jafe ci biir tanière bi. réellement amoon na bien avant ñu dem dañu waxoon nañu étal ba nga xamante ni bu ñu xasee ba dem du ñu waxati waxu xaalis mais on est venu y a notre président après wax bëgguñu bu ko nee wax wax ñu la ñu am wala nañ ko régler une bonne fois daf ñu moom daal jël lépp rek jëbal ko buur bi. amul ñu teel nañu tëdd toog di concentré suñu match suba mais coow li yëpp ñoom ñoo ko indi parce que bu ñu joxoon dès avant suñu xaalis li yëpp du ci nelaw nelaw nañu ba doyal siy boo siy gannaaw kon liggéey bu rafet ba ñu def ci afro basket ba gaynde yu jigéen ñi ñibbisi nañu ak yaakaar gu tas waaye itam ak ñàkk teeru bi leen askan wi teeru. jërëjëf Modou Fall bi yoon nag ñu déglu joriñ gu yore wàllu tàggat yaram di Faustin Diatta moom itam daal dina indi ay leeral jëmale ko ci mbir moomule ñu déglu ko. nous avons eu donc budgétisé au départ 82 millions 500. ci njëlbeen ba ñu ngi budgétisé woon 89 euh, euh, millions euh, ñu daal kon am li nga xam te ne mooy augmentation supplémentaire bu 50 millions lépp rek toll kon ci téeméeri millions ak fanweer te ji bëggoon naa xam kon ban dëkk rek moo gën a investir Sénégal ci afro gasket bi ñu génn juróom fukki millions yi ñuy wax moo mbokk ci woon loolee xëy ñoom équipe bi ñoom ñoo gisoon loolu daal di koy laaj ñi seen prime finale la prime finale la te loolee man. te loolee bokkul kon ci samay pouvoir budgétiser wuñu ko woon ah te téeméeri million yi ak fanweer yi ah, doy na ah, sëkk ah, tey jii loolee képp ko am rek loo xam ni sax remboursement la mën nañ la ko delloo ndax te téeméeri ak fanweer yi doy na waaye xaalis bi ñu waa génnee woon doy na sëkk moo nekkoon lépp lépp lu global ci wàllu kan bi. kàddu Faustin Diatta ko ko doon tekki di Modou Fall desandéeg bi yoon ak entraîneur entraîneur national bu équipe bu Sénégal bu basketball bu jigéen ñi di Moustapha Guèye moom nag nee bu kenn laal ay jigéenam rax si tool yi itam fu mu toll nii mu mel ni ki daal moom ak Baba Tandian di njiitu fédération sénégalaise bu basketball mënatu ñu jaaroo ànd ñu déglu Moustapha Guèye ci kàddu yi nga xam te daal dénk na ko kii di Ndate Diop. wax ji daal dara taxawu ci li ñuy wax yëpp du dëgg ay compte de la xale yi joueurs yi moo suñu toog di réunion ba ay trois heures du matin ku euh, ba. xam nga match bu commencé vingt heures bu jeexee vingt deux heures après am na étirement yi am na conférence de presse boo xam ne man ak Aya ñooy dem et ça prend une trentaine de minutes am na contrôle antidopage bi yoo xam ne ñaari jours yi ñu dem le temps que egg hôtel ba sangu reer julli yooyu day jël temps mais boori minuit minuit demi dàq naa xale yi ñu dem tëddi mais foofu dafa am agent de sécurité waa DIC ñu nga fa. ils sont ils mu ngeen leen laaj. kon président fédération bi di Baba Tandian li mu wax dara amu ci. du dëgg kooku ay SMS yu ko envoyé ka ko envoyé du joué si. doxalinam di maanaam attitude am naka ngeen ko gisee. mais catastrophe la c'est une calamité catastrophe la te li ma ci naqar yi amul fi dafay laqatu si ginnaaw ay nit laqatu si ginnaaw ay wax man lu mu bëgg a wax foofu gënoon man wax ma ko man maay entraîné man maay assumé défaite bi du xale yi du joué si ragal la pour man du du kilifa du njiit te amul fit ndax ñi mu war a wax du leen wax ñoom. Serigne Mbacke Ndiaye eh, di jëwriñ bi nga xamante ni moom mooy yore kàddu njiitu réew mu tey ji nag dana amee dana amal kon bokk jëno ak way taskatu xibaar yi ci bu 10 heures jotee ñu njorti sax boo mooy la dana yëkkati coow loolu nga xamante ni daal moo am jamono gi ci biir basketball bu Sénégal ñu daal di ko jeexaleek wàllu football ñeel may jégalu kon bokk ñeel li nga xamante daal moo di éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2012 euh, Sénégal nag jamono gi ma ngay waajal li nga xamante daal moo di jongantam euh, jongante waaye kii di Khadim Ndiaye moom nag jotata teewe li nga xamante ni moo di entraînement bu équipe nationale bu Sénégal la waral nag moo di dafa am ay jafe-jafe ci wàllum visa ba jàpp nañu daal moom dana baw fii nii ci Dakar daal di dem directement foofu la amee ab gaañu gaañu ci tànkam kon bokk alaaj asan mu mel ni ki daal sojji mu ngay sonal gars yi <laughs> xanaa rek ñu daal di yemale li nga xam te moo di tàggat yaram gi nga wéyal sa journal jërëjëf Cheikh Tidiane ni nga ko waxee dafay ko fi moom war nañ ko topp ci wàllu yoon eh, di grippe bi RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñaar fukki minutes. RFM gëstu bi. ci wàllu courant beeg diggé yeeg boobaak léegi furax daal di xi deen askan wi seenu koo kii gën courant boobu. njàngatu alaaji njogu jéen lu bëriyoon yoon nguur gi digée ne dog dogu courant yi dina jeex toujours muy nax saay app gu mujj di fanweeri fan ci weer septembre bi nu génn mujje doon lépp naka yeneen yi dog dogu courant yi di wéy di sonal askan wi xamatu lu ñuy def te sax mel na ni kàddu yi léegi dafa soppeeku nguur gi waxatul ne dog dogu courant yi dina saafarawu maanaam dina jeex wante léegi dañuy wax ne dina tane bu baax a baax diggante nag dina jeex ak dina tane bu baax a baax wute gure am na ci loolu nag warut a bette su jugee eh, ci koo xamante ni ci boppam moo nangu ne dafay wax waxeet ba fii moom dog-dogu courant yi jeexagul eh, taneegul plan tàkkal eh, bi toll ci juróom benn téeméeri milliards ak juróom fukk ci sunu xaalis tàkkagul ba léegi tax askan wi di wéy ci lëndëm ci jamono jooju jawriñ ji yor courant bi di Karim Wade moom mi ngi jéem a fexe askan wi di dund yaakaar di leen xamal ne dina saafarawu dina baax askan wi ñoom mënatuñoo dégg dina baax waaye baax na moo leen di teel su ko defee ñu tàggoog jafe-jafe dog-dogu courant leneen lu dul loolu nit ñi duñ ko mën a dégg ndax li ñu soxla mooy am courant mën a liggéey waaye tam mën a faj seen yenn soxla yi aju ci courant bi jawriñ ji yor courant bi nag itam njiitu génération di concret kon mu mel ni jot na mu def lu concret ngir jëmmal bëgg-bëgg askan wi di am courant ci anam yi mu waree loolu rek mooy lu concret njiitu réew mi Ablaye Wade mi doon wax doomu Sénégal yi ñu liggéey liggéey lu bëri liggéey saa su ne ñu koy tontu ne foog ñu am courant ba noppi courant bu bëri courant bu doy saa su ndaxte ko amul courant doo liggéey te mbir moom du def lu dul nasaxal koom-koomu réew mi. lañ jóg jéen ñu koy gërëm yegg seeg yéen ci wàllu koom-koom le marché Mantouré Niang bisimile leen ci le marché vacances yi jeex na ba pare sax ay fan yu néew rekk a ci des léegi xale yi war nañ école ubbi na ñu dem jàngi waaye balaa loolu faw nga inscrire le marché nag ci inscription yooyule tey moom la ko jagleel parents yi ak élèves yi ñoom balaa dara sax dañu soxla ay extrait de naissance ñett lu mu néew néew te bu ci nekk ñeent fukk lay jar xalaatal bu fekkee ne njaboot ji ëpp na juróomi élève ci yenn kër yi nga boole ci foto yi ñenn ñi 1000 francs la ñu kaa defee ñenn ñi 1200 loolu yëpp ci inscription bi la am na ñenn sax ñu dem ba 1500 francs waaye nag mairie yi dañ ci am xaalis ndax taxi ak photographie yi comme mooy doxee ni mel léeg-léeg mu jafe léeg-léeg mu yomb Ali Bandel Niang fu école bi jot na laata ndongo yi di wutali bërëbu jàngukaay yi seen ay waajur ñooy yëngu ndaxte ay koppar war nañ koo génnee moo ne sax day waajal nañ ko jënd yëre yi dàll yi ak fourniture scolaire bi waaye am na yeneen koppar yi ñu war a génnee benn bu ci njëkk moo di ñi nga xam ni seen doom day dal école classé yi jamono yi dam dikk bi moo tar diggante état civil bi maanaam mairie bi ak l'école bi ngir wut extrait de naissance ñeent fukki dërëm lañ fay fay ngir ñu am kayit bu bees ba gannaaw loolu nag bokk na ci ñi seen doom di dal sixième maanaam cycle secondaire foofu nag la dépense yi di gën a yokkoo ndaxte livre de bac ba ngay joxe day ànd ak ñeent photo identification mu di ay photo yi nga xam ni photographie yi ñetti téeméer nga leen di jox laata ñu lay photo jural leen ab marché bu naat lool jamono yi moo tax sax ba ñoom ñoo di photographie yi ku doxantu ci bërëbu lekkool yi seen ay moto ak vélo koy fekk ci bërëb suba teel gannaaw loolu nag ñu ñëw ci wàllu blouse bi blouse bi doon jamono yi lu obligatoire ci ay collège yu gën a bari ci diwaanu Matam bu ñu jëlee misaal capital régional bi ñeenti téeméer la ñu teg ci juróom ñetti téeméer yi di frais d'inscription maanaam mu toll si junni ak ñeenti téeméer yi nga xam ne waajuru ndongo bu ne da koy génne ci biir région bi nag daanaka prix boobu day wutee ndaxte yëg nañu ay collège yi nga xamante ni junni mooy inscription bi juróom benn téeméer itam moom mooy bi mu yegg ci junni ak juróom benn téeméer yi nga xam ne waajuru ndongo yi dañ koy génne ngir ñu mën a seen inscription doom te Ali Bandel ñoo xam ne seen këyit yi nekkul ndakaaru faw ñu yónnee su fekkee ne biir Sénégal la ñu yónnee ci gox-goxaan yi loolu di nga fay transport bi aller ak ak extre bi xëy na nag nga am chance mu am ku la ko defal wala nga jaarale ko ci post lépp nag day doxal koom gi su fekkee ne nag biti réew nga nekk am na ñeen ñoo xam ne dañuy dem ministère des affaires étrangères toppatoo fa këyit yi te loolu yëpp xaalis la gannaaw nag boo paree këyit yi faw nga dem inscrire yi loolu nag faw nga génnee xaalis am na ñenn ñoo xam ne ñaari junni la am na ñeneen ñoo xam ne ñu ko ëpp la waaye ñaari junni yi moom jàpp nañ ko ki ñu ko xamal di suñu correspondant bi nekk banlieue Salif Sow ñaari junni ndonga daara bu nekk loolu dafa bari ci gis-gisu Aji Marème Ndiaye moom élève la quatrième lay def ci CM Ogo Diop am na ci ñum jafe parce que tamit da ngay xëy sax da gis élève boo xam ne sax du am lum ndekkee ci kaw taalibe ñooñu ci mu leen di dimbale ci côté bu nekk parce que tamit dafa metti moom ak xaritam yi nga xamante ni dañoo tase ñoom ci ëttub lycée bu Parcelles Assainies lu ñu bëgg mooy ñu wàññi li nga xamante ni mooy inscription yu Fatou Ndiaye Wade léegi aj ma dem mu wax ni baax na parce que mun nañu wax mun nañ alerter état bi comme ça muy joxe muy def ay moyens pour dimbali ñeneen ñoo xamante ne amuñu ko gone gi nga xamante ni seconde lay def ci lycée LPA lii la ci teg dix soo ko boolee ak blouse bi ak inscription yi ak frais de scolarité yooyu yëpp baax na. kàddoom yii nag la ki jiite CM Joseph Félix Correa a bëgg a dégg moom El Hadji Bira Fall gis na ne lii di koppar yi lu luñ ci war a def daa bari. li mu fàcc lu bari bari. élèves bi ci lay amee tenu te dix mille francs yooyu bu salle bi yàqoo. taal ba toilette yi ngay defar. donc lu bari moo ci nekk. assurance élèves yi même l'examen aussi des fois ci lañ koy fay. xaalis bi nga xamante ni sax moom la ñuy dajalaat te mu jógee ci inscription yi mënta def lépp la daanelee. dañ ci jéem a def lu ñu mën lu ñu ko defee. seer na wala seerul ministre ministère de l'enseignement élémentaire moyen secondaire ak langue nationale ki ko jiite di Kalidou Diallo am na ay dogal yu mu jël ngir inscription yooyu le njëg li école yi bañ ci xabaabal kii nag mu ngi tudd Abdoulaye jaata moo di directeur formation ak communication ci ministère boobu boobule gën nañoo gini dafa bëgg doomam yi yëpp dem école fii ak deux mille quinze moom mooy scolarisation universelle bu mu am benn xale boo xam ne nii dafa toll ci war a dem école ñu am ay gàllankoor te loolu gàllankoor bi moom mooy fay loolu moom moo tax li nga xam ne nii moom mooy ñuy door a dal école di def li ñuy woowee CI ba bu ñuy yegg CM2 kenn mënu leen laaj dërëm pour ñu dem jàng ñu baamtuwaat que xale yi nga xam ne dañu dugg sixième ba CM2 ñooñu seen inscription du dërëm du ñu fay dara. maanaam amul frais bu ñuy fay. amul droit bu ñuy fay pour mun a dem jàngi. yi bi cm bu fekkee nag moyen secondaire bi lañuy def sixième ba terminal. yi nga xam ne am nañ entrée sixième. Euh, nga xam ne ñu ngi dugg sixième dem euh, classe yu mag yi. ñooñu dafa am lu ñu war a fay. mais fay boobu aussi dañ ko réglementé. maanaam kenn mënul laaj. ëpp ñaari junne pour xale bi mën a bindu donc dafay nekk waxtaan diggante euh, autorités yi nga xam ni ñoom ñoo yore école bi ak parents d'élèves bi dañuy waxtaan di jubóo li ci gën a néew juróom benn téeméer la li ci gën a bëri ñaari junne la war a doon donc loolu war nañ ci fay euh, lépp loo xam ne nii daal moom mooy euh, frais yi nga xam ne ni ay assurance la wala ay juróom yu war a sol wala yu may yu ni mel daal donc moyen secondaire bi dañuy fay diggante juróom benn téeméer ci gën a néew ñaari junne ci gën a mag ñi nga xam ni dañoo nekk ci classe yu ndaw yi maanaam eh, ñiy door a dugg ren ba fi ñuy defee ci examen euh, certificat d'entrée civile ñooñu duñu fay dërëm pour nga xam ne nii li nga xam ne moom mooy droit d'entrée. su fekkee ne am na école boo xam ne dafa jéggi disposition yu ñu jël yan daan la ñuy teg ci kawam. disposition kay moom dañ lay sanctionné rek. te moom dañ ko fi teg pour ñu koy respecté rek ko respecté wul nekk du la daal ëllëg yaa ko def sa bopp. dañu kaa dàq dañu kaa dóor wala dañu kaa tëj naka la ñuy def. mais xam nga règlement dafa am dafa am dafa am lu muy tëddee. lu ci nekk wax dépend ci ni nga ko jalgatee rek. am na loo xam ne nii peut-être dañ lay defal. Euh, benn mise à pied am na koo xam ni peut euh, koy relever peut-être ki da nga koy traduire en justice. ça dépend ci niveau faute bi nu muy toll rek. faute bi nu mu yem rek loolu la sanction bi di yem. parce que de toutes les façons en tout cas ku faute moom. di nga xam ne faute nga buñ la jàppee moom. mais li nga def teguloo ko ci yoon. yoon dina def sa ko. loolu moom mënuma la ko wax. bindi leen ñu ci rfm le marché arobase yahoo point fr wala boog ci f rfm le marché di leen jaajëfal ci déglu bi ba talaata bii di ñëw bu soobee li ci yéenekaay yi. Master Office bi ngeen taamu moo leen di jagleel ay salon cuir ci